Amen jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ci sunu site AND TV euh, li nga xam ne nag ñu ngi fii tey ci diwaanu Njaañ nekk nag li nga xam ne moom mooy euh, guddi mawlut euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey nag ñu ngi fii ci kër Serigne Amar Diagne gis nga nag ci waañ wi nga xam ni moom la daayiratu Matlaboul Fawzeyni daal di gérer tey li nga xam ne moom mooy nekk fii ci waañ wi ñu ànd ak sunu yaay Mariam mi nga xam nag moom mooy ŋànk li nga xam ne di jëwriñ bu jigéen bi ci waañ bi duñ def lu du ànd ci moom ak kaddu sunu yaay Mariam tey lan nga gis ci guddi mawlut ak liggéey bi nan ngeen ko organiser tey bu fii tey asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi dollee sant yàlla ak bi di sant Serigne Touba di am mbégte boog ak contentement bu baax ci bis bi nu yendooti tey te yàgg koo fekke muy fii ci ëttu sëriñ Amar Diagne ñu koy wax ëttu Masaalikul Jinaan kër Serigne Mbaye maami Serigne Mor Diagne tubaarkàlla laaw la cet macha allah lépp sunu làmmiñ du ko laal waaye ñu laal ci tuuti rek ci ay kàddu di sant di gërëm rek di ñaan yàlla mu yàgg lool te sax ndax euh, gàmm gi sëñ Mbaye Diagne sunu maam ju baax ja def ko daan def jóge fi bàyyi fi doomam ju ñuy wax sëriñ Amar Diagne kàll ak euh, sëriñ Ndiaga Diagne imaam te liggéey bi dara yàquwul dara ñaawul. jamono di dox ba sëtëm bi ñuy wax sëriñ Mor Diagne moom xaadimul xadim yàlla na yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér. te li mu naal ci yoonu kër sëriñ Touba wi yàlla àggale ko ak yonent bi ak sëriñ Touba te nu fekke ko te ñëpp fekke ko tatal ko jaañ tubaarkàlla tey boo dikkee ci waañ bi ba xool jigéen ñi wala nga taxaw ci penc mi ba xool penc mi wala nga taxaw ci dëkk bi ba xool dëkk bi nga xam ne njaañ dañu naan bu fekkonte ne bii ci ñaar la toll woon tey àgg nañ ci fukk ak nangam yu ci dolleeku fa mu bëgg mu àgg liggéey bi ñi ma ko àndal ñëpp tubaarkàlla laaw la cet mënuma koo lim bari nanu yaatu nanu ndax lépp lu bokk ci daayira Matlaboul Fawzeyni rek kullu ku nekk daayira Matlaboul Fawzeyni maa ngi koy commencé ci bureau bi nga xamante ne bi ñoo sës rëkk ci Serigne Mor Diagne muy adjoint bi ak trésorier bi ak ñi ci nekk ñëpp ak euh, bi nga xamante ne bi mi ngi ci nekk ñëpp déglu nañ ko déggal nañ ko te liggéey baa ngi dox mi ngi fonctionné macha allah tubaarkàlla macha allah muy ci ñoom góor ñi. jigéen ñi tamit li fi nekk ci jigéen lépp sama làmmiñ mënu koo lim par benn su ma leen xamee ñoom ñëpp xëy na temps bi duma may loolu waaye muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen kenn ku nekk dagg nga sa itte boole nga sa doole ak sa alal ak sa xam-xam lépp def ko ci bisu gàmm gi ngir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ci taseeg ngërëmul sunu borom. salaamaaleykum wa rahmatullah ah, mu ngoog jërëjëf uh, gi nga sunu yaa Marema li mu uh, wax kaddu gi am na solo lool waaye tam nga gis uh, fi nga xam ni moom mooy ci wàññu man la ba fausé ni di daayira bi gis nga ko ci li nga xam ni maanaam moom la def ci liggéey bu sell bi nga xam ni moom la ñu dooroon ci liggéey gis nga ko ñu ngi noonu di ànd ak gan ñi gannaaw nag bi 14 heures jotee gannaaw bi ñu julee ba noppi ñu ngi noonu di yóbbu xéewal yi ngir di ko teral gan ñi nee naa la fu ne nit jóge na fa diwaanu luga Ndakaaru fu ne jóge na fa gis nga ko loolu la leen indi xam ni moom mooy suñu tey ci diwaanu Njaañ wax dëgg yàlla mu ngoog AND TV ñu ànd ci ak yéen ak yeneen i image